asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mardi 7 juillet 2020 ñëw ak yéen ci yëglikaay yi sunu lamb la ni xëy doore ko tey mu mel ni ki yëglikaay ba nag moom la mu xëy tey ñëw andil ñu ko mooy Balla Gaye numéro 2 mu taxaw ca diggu géew ba daal def ay rastam waaye sunu lamb da koy xëy di laaj laaj ba nag Abdoulaye démbale moo xëy samp ko maanaam Balla mii est-ce que revanche bi mu jox Gris Bordeaux est que nekkul def ay risque maanaam daal est-ce que li mu dugg nii wóor na loolu laaju ki nga xam ne nii moo di Abdoulaye Dembélé la ci yëglikaay bi nga xam ne moo di sunu lamb waaye bu nu continuer ba te ci yëglikaay ba ka nga xam ne nag combat am ak Balla la ñu njëkkoon di wax te jul am muy booy Niang maanaam daal mu ngay leeral la waral tey mu bañ cinquante cinq million ya waaye jamono jam koy wax nag am na ñoo xam ne nii moom joxe nañ ca seen xalaat ku nekk daal yaa ngay wax la tax mu bañ waroon naa bañ wala waru ko na bañ dëcc caw di la mu jàpp daal ne na ki nga xam ne nii moo di Boy Niang bañ cinquante cinq millions yi moom waru koon koo def waaye maam Cheikh konaate moom nee na ko ah kay lañ ko fay dafa tuuti booy Niang dépassé na cinquante cinq millions ci kase Pape Fall moom ba tey ab photographe la moom itam jàpp na ne Gaston Mbengue ci boppam moo waroon a raisonnable fay lu jaadu Sala Sow ci oxygène la ne moom it mu ngay wax de nee na Boy Niang it waroon naa mën a def ay sacrifice wala boog ñaka yore yëglikaay ba loolu la xëy tey dalal ñooñu ñuy wax Mandiaye Fall itam yokk na ca wax ja moom staff ba la xëy waxal nee na ñoom daal xaalis boobu ñu leen jox dañu ko waroon a encaisser dem bëri loolu la ñu wax ñoom ñooñu nga xam ne laaj nañ leen na nga gisa mbir ma nga xam ne nii moom mbër la ne ca làmb ja te ñu na mën a bëre ak Boy nga xam ne moo di Lac de Guiers numéro 2 mooy Tapha Tine léegi nag moom lan lay choisir loolu ba tey yëglikaay baa xëy tey ñëw wax nu ko koo xam ne nii moom choisir na muy Franc la mu choisir nag yëglikaay bi moo jàpp ne est-ce que lii du colis boo xam ne bu dis gann la muy seen 2 sunu làmb xëy tey ñëw samp boobu lew laaj keneen koo xam ne itam choisir na ba war bëre waaye moom la koy xaar mooy bi yoon daal yëglikaay bi di sunu lam ne na Quench moom ndam lu leer moo gën a wóor ci moom ndax nag fa mu mujj a jóge moom la mu fa jële neexul ndax mat si niil la fa jële keneen koo xam ne nii itam fi mu nekk nii moom bu bëggee dégg-dégg yaram wa tàng na lool muy jib son maanaam jibi njaay moom daal mu ngay continuer taxawal ay combat espoir rek ginnaaw démb ba mu andee petit ñaa ak ka nga xam ne nii moom moo di jàppal booy dakaar waaye yemu ca de xëyati na tey dem yoof jël gin bu yoof ñu ne koo jël bulldozer moom itam ba nekk ca Kër Masar wala Malika boole leen ñoom ñaar ñu war a jàmmaarloo loolu la Jibi Njaay daal di def leneen loo xam ne nii wala keneen koo xam ne nii moom ab xale la dañ koo xëy tey di ko laaj ca ba nga xam ne nii moom la yëglikaay biy def tudde ko la nga xam ne moo di Leewtoo muy ki nga xam ne nii moom moo di Aline bay Nder bu benn baraak mbooloo moom nag daal li ko gën a marqué ci làmb ji lay wax jàpp na ne defetu Yaxya Jóob Yékini ci kaw Balla Gaye 2 moom nee na bés bu mel noonu dootu ko gaaw a fàtte waaye bu ba tey dem fa nga xam ne moo di Leewtoo point net foofa moom ab laaj la ñu xë xëy samp tey ka ko def mooy ndey kumba maanaam daal Balla Gaye numéro 2 ak revanche nga xam ne jotagu na koo bëre muy ñett mu gagné ñaar ya perte benn ba maanaam diggante mag Issa Pouye ba da koo gagné diggante mag Eumeu mu perte revanche ba diggante mag Modou Lo mu gagné waat revanche ba jëmaat ci beneen revanche diggante mag Gris ñu samp ab laaj di laaj ndax bi yoon day continuer gagné ka nga xam ne nii moom wala ba ne moom la war a seq ak ka nga xam ne moo di Gris Bordeaux bu nu demee record moom ka fa xëy di wax mooy ba fa géey mi nekk entraîneur Fatick ba fa daal jàpp na ne Gris Bordeaux moom mu daan Balla Gaye ba fa daa jàpp ne Gris moom bëri lew fa ay sans ne na kay bu daanoo du ko bet de xanaa daan na kay moo koy bet waaye pour Balla daan ko moom daa jàpp ne loolu du ko bet moom ba fa géey tafaatin moom bu ñuy wax diggante Boy Niang ak Lac lu muy choisir ca record tafaa moom nee na leen pare naa de ñoom ñaar daal ku ci ñëw ma jàmm jàmmaarlook yow ba mu saf sap ràññet lewu ma booy ñang nii Lac de Guiers numéro 2 loolu waxi Tapha Tine la ca record ba tey bu nu continuer ca record mu mel ni ki nag soo bëggee dégg-dëgg daal promoteur yi li simple yi moom tànnati nañ njiit lu bees ka tànn bi yoon nag mooy Ablaye Diop bu sum moom la tànn def ko seen njiit maanaam seen président loolu yëglikaay bi record a xëy ñëw wax nu ko waaye leneen loo xam ne amoon na fi di aw tiis mel ni ki ba tey sunu la ñuy dellu ca tuusi mel ni ki booy ñang la da caa ñëw waaye Gris Bordeaux itam jàppal taxawaayam daal ci ña mu jiite yëglekaay bu ñëw na ci jàpp na ne Gris daal bu neexee danga koy gis ak gars yi waaye bu naqaree itam da nga koy gis ak ña jiite mu mel ni kon yàgg maar la ñuy xaar ci njiit wala kilifa mooy bu neexee nga taxaw bu naqaree nga taxaw bari looy jëf lool te néewal say wax soxla nañ ko ci kilifa rawatina wax ju ñaaw ju ñaaw ji moom njariñ amu ko te du ko mas a am wax ju baax kay la xaar ci kilifa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 a ah, waaw ñun de yàlla def am na yàlla moom ñun moo moo fi nekk comme moom mu ngi fi daal. Ah. nañ ko ñaan rek xëy na yàlla dina def ñu ah, am kon nañ ko daan amee rek. incha allah yàlla baax na amaguma xar amaguma buum amaguma amaguma daal. amaguma dara lépp dina ñëw incha allah yàlla baax na. <laughs> si yow laa ko yaakaar. <laughs> dinaa la ko jox amul muskile yàlla baax na. <laughs> baaka nag ni ñëw nag si jàngatu arène bi ñu commencé nag ak sunu laam sunu laam daal nee nañu ki nga xam ne mooy Balla Gaye ginnaaw nag bu muy naree jox revanche ki nga xam ne mooy Gris Bordeaux est-ce que tamit nekkul daw ay ay risque maanaam est-ce que combat revanche bi nekkul risque si moom waa mu dama naan lépp risque la parce que lu tax mooy que ni yow li nga bëgg la sa morom bi bëgg da nga ngembu ànd ak sa ay mbokk ñëw pour bëre pour daan Balla Gaye de dafa ngembu dafa war a ngembu war a ñëw jaaxaarloo Gris Bordeaux boo xam ne da koo gañoon par ay avertissement Balla Gaye de war a ñëw confirmer waat ndam loola mu amoon loolu la bëgg kon defe naa loolu rek déjà risque mënatu koy passé te ki nga koy séqal muy Gris Bordeaux moom koy séqal tamit la Balla di bëgg lay bëgg moom ma nga xam ne moom dañ ne woon ko yaa ñàkk tey li muy bëgg mooy loola nga xam ne moom lañ ko atte woon mu leeral ko ba mu leer ci combat bi kon defe naa dama risque bi moom ba nga lekkee avance bi fas yéenee summee ku bëree te bëre ba lu ne mën caa am ci risque déjà commencé. Mhm. ni ngi ñëw nag si beneen mbër mi xam ne kii mooy euh, Tapha Tine. Mhm. nee ñu nag am na choix entre euh, euh, la de ak ki nga xam ne moom mooy Boy Niang. waaw choix bi day moom fi mu nekk nii daal moom loo ci mën a dégg moom moom Tapha Tine moom foofu fu mu fi bëree pour man baax ma mhm. muy Lac revanche la muy Boy Niang combat jànq la. defe naa ne ñooñu ñëpp ay adversaire am lañ ko te itam il est l'heure que ñoom ñooñu. ñu tàqale leen xool nu leen di boolee pour ñu mën a dugg ci biir bëre parce que lamb ji soxla leen ba tey li ñoon nag si Boy Niang 2 Boy Niang 2 nag gannaaw bu mu bañee euh, cachet wu 55 millions moom la mi ngi expliqué la moo waral. waaw maanaam daal mu ngi wax lu lu waral mu bañ ku nit ñi tamit ku ne ñaa ngi jox sa xalaat waaye li ci am solo daal mooy mooy staff bi nga am moo ko yore ñoom jàpp nañ ne liñ ko fay. du prix bi abordable pour combat bi mu war a ak Balla Gaye loolu nag bi mu amee ñàkk déggoo am na promoteur ba dem xooli beneen adversaire loolu mooy lamb booy ñang comme li la waxoon rek adversaire yaa ngi si lamb ji war na mën a bëri jiwaat ak ñeneen ak ñeneen ci biir lamb quoi mhm. Mhm. dina am ngi ñëw si ki nga xam ne moom mooy Quench nee ñu nag ginnaaw mu defee match nul ak Diène Kairé nee na nag il faut mu am résultat waaw maanaam ndam daal la koy xaar comme combat bi mujj daan niil waaw ndam de moo koy xaar parce que ku jóge ci match yi moom say supporter dinañu xaar booy ñëw bi yoon mm-hmm. nga indi leen victoire parce que sport bi moom lenn si nekk match nii la fa am défaite ak victoire waaw moom nag loolu lay bëgg ngi bi yoon ngir la ko daloon ca jéen bañ ko dalaat waaye itam ndax double moteur dina nangu loola foofu fa la mbir may nekk nag parce que jongante la waaw waaw ñëw nag si beneen promoteur muy euh, Gibson production moom nag taxawaat na beneen combat diggante Guine ak Bulldozer. waaw Gibson <laughs> Gibson sa série bi man xam fu ngeen toll sax moom Jibi Ndiaye kaay jox ndey Kumba xar. xanaa ab tabaski. waa parce que mu ngi taxawal ay combat kon am na xaalis <laughs> Jibi Ndiaye ñu koy nuyu di ko ziar taxawal na démb ay combat bu neex. Mm. diggante xale buun ba muy Petit Ñaa. ak nga xam mooy Boy Dakar muy combat bu neex tey mu xëyaat. indi gin bu Yoff ak nga xam ne mooy bulldozer bu Kër Massar wala Malika muy koo xam ne tamit Assane euh, Jibi vraiment mu ngi bay waaram ci affaire yi quoi parce que mu ngi tëgg ay combat yoo xam ne saa yu ko tëggee rek di xam ne ay combat yi muy tëgg doon tay espoir lañu mais combat yu neex la amateur yi di xaar bëri la quoi mhm, beneen combat nag boo xam ne amateur moom la xaar muy Tyson 2 nee nag Tyson 2 est que nekkul benn mbir bu euh, loolu moom defe naa Sénégal yëpp xam nañ ko te képp kuy suivre làmb xam nga ne Tyson 2 ku ko ka am comme adversaire am nga adversaire de taille mm-hmm. parce que itam li tax loolu mooy que ni sérieux na si li muy def mën na bëre macha allah mën na xeex te itam am na ginnaaw mm-hmm.

amul tuuti chance daal la am pour daan ki nga xam ne moom mooy Balla Gaye waaw Bafa de bu waxee loolu dañ naan borom xam-xama wax parce tamit li tax mooy que yore na Fatick ay at di gën a gagné drapeau chef de xam na mbër yi xam na naka la ñuy bëree dafa fekk ne tamit euh, tey làmb moom da koy séentoo nii mu ñëwee na le yaa dégg mais moom bu waxee ci côté technicité xam naa ne foofu lay waxee waaye li ci am solo daal mooy giri wala muy Balla xam naa seen combat bi di ñëw xalaat naa ne man kër jël dina ci am. jël bu leer sax xalaat naa ko te xalaat naa jël bu rëy ci ami mhm. waaw euh, euh, Abou tam mi ngi expliqué mi ngi dalal ki nga xam ne moom mooy Tapha Tine Tapha Tine léegi nee na d'accord na bëre ak ki nga xam ne moom mooy Boy Niang ak Lac de Guiers 2 daal ku si ñëw rek baax na. waaw ñooñu ñooñu di adversaire am di ñooñu ku mu ci am baax na Boy Niang adversaire la Lac de Guiers adversaire la. Mhm. loolu làmb la. waaw ni euh, nga wax nag association des promoteurs euh, lutte simple nee ñu nag léegi am nañu benn président bu bees Ablaye Diop bu sum production moom mooy seen président. waaw maa ngi leen di nuyu promoteur lutte simple yooyu yëpp rawatina ki ñu fal ci kaw muy sama xarit Ablaye Diop moom sama waay la ma ngay nuy di nuyu doom ndeyam Adama Diouf defe naa ñoom tamit loolu mooy àddina àddina kuréel gu ne war nañoo am njiit Ablaye Diop ni ñu ko gisee par rapport ak comportement ci lutte simple bi ji mu am. ak ouverture bi ne yaakaar naa ne day ci suma xalaat bu gàtt war na mën a jiite lu mel ni ki

mooy Eumeu Sène Eumeu Sène daan ko ak bëreek aussi ki nga xam ne mooy Issa Pouye Issa daan ko mu jëlaat revanche am euh, mu bëreek ak aussi Modou ñaari yoon daan ko nee ñu nag est-ce revanche bi muy jëm nag contre euh, Gris Bordeaux dina si am nam ginnaaw moo amee ñaari victoire si ay revanche ak benn défaite waaw loolu day question la bu jara sampitam parce que boo xoolee revanche am ak Issa dafa gagné revanche ba revanche am ak Eumeu Sène mu ba ñëw mu ñàkk mu Modou mu gagné aller ba revanche ba ñëw mu gagné ko tey mu joxaat Gris Bordeaux combat revanche ah loolu nag comme li ma la waxoon laa lay waxaat rek dañuy yónni yàgg rek xool ba xam ndax Balla ndax day ñëw continuer ca la mu nekkoon maanaam gagné revanche bi ndax revanche bi mu mujj ak jóge daka gagné ñuy xool ndax day gagné bi wala boog nu wànne di mujj ak ay bëtam mais nag nañu xam ne rek làmb la te làmb a Maodo Mouhamed Diouf di nuyu Astane DG Brahma Chéri Khadija Diallo depuis Parcelles ak Italie di nuyu samay doom Mame Diarra Penda ak ki nga xam ni mooy Rakaria ak Grand Fallou di nuyu euh, Asek Chéri Khoudia Seck depuis Italie Abdou euh, euh, depuis États-Unis Baye Fall Diamaguène Papa Cité yaa ngi si biir Asi Diagne sama naar boobu nag ak tuuti yaay saa tamit maa ngi koy nuyu. <laughs> maa ngi leen di nuyu ñoom ñëpp Asi borom noo ak sot maa ngi koy béy di nuyu waa Mourtani yëpp. Mm, tur yaay Sarr tamit du ma ko fàtte di nuyu képp nga xam ne daal yaa ngi ñuy suivre waaye tamit di nuyu ñi nga xam ne nii ñoom ñooy waa Peter Sène ñoom Jib Sène ñoom xam nga Cheikh Lambaye Babacar bu Mood Lama ñoom ñëpp maa ngi leen di di ma jaay la ah wala fayal ma jaay la maa ngi lay bëggee di la du ay dóor xam ndey Kumba li nga xamul moon diggante Babacar ak jaaykat yi dafa man jaaykat laa man déggoo dama la wax dama la ne man wanteer naa fukki jaay jaay naa ay rajo man jaaykat laa man xama bool bool laa man yàlla dafa maa dimbali yàggamaar tënkuma sama bopp ci lenn non non man bu ma jógee fii léegi mën naa dem léegi sotti bagaas yi acca yuuxu client yi tiim ko ma jaay looloo tax muy nuyu waa marché yi peut-être nag. xanaa yàggalee tëggal nag. Sandaga ak Marsa Asalem ak ñëpp maa ngi nuyu Babacar Ndaw Marsa Asalem moom tam du ma ko fàtte ñoom Badara Cuuraay gars yi fa nekk yëpp xaadim Cuuraay képp kuy yënguti njaay daal wala ngay liggéey sax laay wax maa ngi lay ñaanal jàmm di ñaan yàlla yokk tabaski gii nag yàlla nañu yàlla dimbali bañ dugg ci bismillah rahmaani rahim génn ci alhamdulilah rabbil alamin te ku ci ne la nga ci soxla yàlla ko yàlla defal lu kawe sa njor ndax yàlla am na lépp nday kumba faal lu la jaaxal rek delloo ko sunu borom te encore une la ma waxoon dem laay waxaat kilifa yi ñu jiite sunu réew mi nañu bàyyi yenn yu ñaaw yi ñuy waxante mu yegsi ci ñun saagante amul njariñ feeñali saaga itam amul njariñ defe naa ne joxante cër dara gënu koo baax kilifa daal da ngay taxawee sa taxawaay ndey Kumba Fall Sénégal yàlla na fi yàlla def jàmm tàppe xol comme na ko maam ta baax doon waxee barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam.